bari yu bëri ñoo ñoom ñoo bokk jamono euh, mais du benn communicateur traditionnel wala ngay reporteru làmb te fekkoo ñi ci làmb ñoom ñëpp nag te kenn ku ci nekk rek mën nañ laa sa wala ñu wax la loo xam ne fekke woo ko parce que liñ la nettali ak li nga fekke bokkul ñun dañu fekke dañu fekke ñu bari tey boo leen ne lan moo tax arène sénégalaise nekk fas ak kan moo euh, sos arène sénégalaise duñ ko xam góor gi Kantra Fall man Mansour Diop mi bàyyu Adel Fall moo yoroon école dactylographe ba nekkoon ca euh, mbot boo ñëwee Sandaga boo laajtee mbot foofu ci jàkka ji fa école ba nekkoon mais comme que euh, dafa toll ci ay jamono Alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang man fi booba arène sénégalaise arène Bekaay 3 mu nga nekkoon ca euh, Rëbës te ñaay coker fala fala arène euh, Bekaay 3 nekkoon fii nga xam ne euh, mooy arène sénégalaise nag papaay maami Mansour Diop góor gi Kantrafal comme que dañ daan gam gam le diggante euh, Alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang ak Bosco Bosco la góor gi fakk pàkk boobu def ko arène tudde ko arène Bosco arène Bosco bi muy laataa tudd arène sénégalaise arène Bosco Sow la jëkk a tudd mais li ko indi nag ci mu tudd arène sénégalaise góor gi ma xari caam ak Baye Jibi Diop ñoo doon daanaka démarcheurs yi làmb Euh, ak euh, alaaji mboor ñing papaay biram ñing mii moo fi indi Fodé Doussouba Fodé Doussouba bi muy ñëw mu indaale le professeur bara indaale Falaye Balde keroog bi foode Fodé Doussouba wàccee fii ci ka euh, ci oto lañ ko teg di ko wëral leen Ndakaaru ne mbër mu mat deux cent kilos ñëw na ci ci réew mi man mbër lañ koy jox. boobu fan la jóge woon. ñu ne man mbër lañ koy jox ñu dem ci Alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang ne ko comme que yaa daan ñëpp te am na menn mbër mu jógee Casamance mu ñëw mat deux cent kilos dañoo bëgg nga bëreek moom mu ne leen ñama daan àndal a ngi nii ci biir làmb ñama daan ñaanal a ngi nii ñu ngi fi jóguñu fi waaye doole doole ja dem na waaye bu ngeen demee Yoff am na benn xale bu ñuy wax dem ba Thiaw Diène bu ngeen d'accord rek moom day bu ngeen ko joxee mu bëreeg moom ñu ñëw yow fii jël Demba Thiaw Diène Demba caw Diène njiin fëre du suba fii ci euh, arène Madoune Khoule fii la ko Demba Thiaw Diène daane ci arène Madoune Khoule kon buñ ko fi indee moom moom defet la jëkk am fëre du suba fii waaw. moom moo dëkk Pikine ci wetu arène nationale bi. Pikine ci wetu arène bi moo fi moo fi indi fàllay papaay ama moo fi indi la professeur Barabara xanaa xamoo ne Barabara li mu bëri. nuyu du am na doom bu ñuy wax fils de Fodé. mi ngi noonu euh, li mu am ci ay victoire Fodé amu ko Falaye Balde amu ko. te te fi andi. te leen fi indi te ñoom ñaar dem nañu ba bëri ci biir làmb. kan ak Balde ak ak Barabara. dem nañu ba bëri ci biir làmb. Euh, euh, falay ko daan. parce que booba Falaye da koo gën a nekk jeune da koo gën a nekk jeune bara bara danaan bëri samedi gabar ndooy daan dimanche mu bëri arène sénégalaise daan ba seddi altine mu bëree daan moo tax mu ëpp ay victoire ci ci ci génération Falaye Balde nag 1963 euh, 138 combats la bëri am ci 4 défaites ak 2 matchs nuls 1963. 1963 138 combats la bëre am ci 4 ak 2 matchs nuls. ci benn année yëpp. bi muy bi muy bi muy bëre ba ëgsi parce que daanaka 59 euh, la fi la fi Fodé ñëw indaale Fallay ak Barabara 60 ñu am indépendance 61 la ñu xam Fallay Baldé. diggante 61 62 63 138 combats la ci bëri am ci 4 défaites ak de matchs nuls benn défaite ci babu Ndiambarne benn défaite ci Landing benn defet ci Bécaye 2 bu Caaroy Géej benn défaite ci Boy Ñag ca Kaolack keroog maag papaay Lamine Samba Lamine Samba mii di wax papam chauffeur taxi la woon fa lay balde rek la bëggoon keroog dañu dem Kaolack ñu daan Falaye Baldé ñu ànd maak moom di jooy di jooyee euh, Kaolack ba Ndakaaru moom ngeen doon supporté wala. ku ñu bëggoon Falaye Baldé papay Lamine Samba dafa bëggoon Falaye Baldé xamoon naan dina am doomi reporter parce que dafa bëggoon làmb bu nga bu làmb amee deux heures raxas na taxem ba mu naay su mu sànca ba rafet dëkk dagg bi yam toog si ko euh, euh, tribune bi di xaar nga xam ne bu euh, bu njëkk la amoon euh, ak léegi li am bokkul bu njëkk amateur moo amoon. ñu bëgg làmb ngay supporter Bécaye 3 may supporter Fallay Balde kële di supporter Maam Góor gi kee di supporter keneen ak keneen bu ñu xëyee nga làmb am ñun ñëpp ñooy dajaloo dem ci kër kenn mu rey xar defar njar ñu togg añ. togg jàpp gars yi lekk ba suur sañca ba rafet ñëw ko ñu fekk si woon dagg bii yëpp daggal ñëpp bii ñu yéeg te duñu bokk ñu supporter di werante di waxtaan tuddante ay doom mayante ay jabar léegi nag supporter moo am. des damay gis image yu yàgg yoo xamante ni nii mag ñu njëkk ña bu ñu daan dem làmb comme ñu dem xew. dama ne dañ daan sañset dangay ngay gis euh, maa ngi fàttaliku góor gi Issa Mbeng jaraaf Yoff papaay Abdou Naar Mbeng papaay euh, Abdou Aziz Mbeng diggante mam góor gi ak Bekaay 3 dañu bëree cëk euh, euh, arène Gabarndooy bi maam góor gi jël Bekaay 3 ñii ne benn sa tànk la sukk ñii ne ñaari sa tànk la sukk mu dañ ko ci ci naq bi mu toog ñu naan ñii naan Bekaay 3 daan ñii naan maam góor daan bët dimanche ba ca topp ak góor gi Issa Mbeng moo génne cent cinquante mille ne leen euh, euh, na ñoom Baye Makhari tëggaat leen combat bi arène sénégalaise ñu tëggat combat bi arène sénégalaise mam góor gi buddi ko da dóor ci suuf moo taxoon moo tax mu doon bàkkoo bekaay trois bu na njaay daf doon wut lu far mu gën faa yées nga xam mbër làmb dafa àndoon ah, euh, sport bu ànd culture léegi nag culture baa ngi dem. culture baa ngi dem sport bi rek fi des dóorante ay kurpañ kii déedéet lamb bu njëkk ambiance la am na ñoo xam ne tous mee leen andi am ñoo xam ne woyee leen andi am ñoo xam ne lagg bi mbëri daan lagg moo leen andi mais am na ñoo xam ne ci lamb tey sunu ay ca ay ca ji rek moo leen andi ci lamb mais kooku boo ko bëggee xañ xay ay ci ay ca bi xañ xañ nga ko lambam. moo tax làmb li li li mu ëmb dafa bari ñun nag ñu am fu ñu teg suñu tànk léegi parce que cinquante neuf ba nga ni ngay seetaan làmb maa tëggal Pape Diop carrière ba mu jeex maa tëggal Boy ñaan numéro un carrière ba mu jeex maa tëggal Mansour Diop carrière ba mu jeex keroog ba ma tëggalee Ndiaga Diop laa dam gala nii na bàyyi naa tëgg dama la gis nga def lu am solo euh, ci ka euh, signature Gamou Gueye ak Sokh nga ne xale yi doon tëgg tëggal leen ma xaw ma lan ak lan lan ñu tëgg ko doxul ñu ko doxul nga teg micro bi jël galañ gi ñëw toog wan leen ñëpp seen xol sedd. wallaahi wallaahi xam nga euh, loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam ñun dañoo tarbiyu làmb Ipo moo daan tëggal Mbaye Gueye. waaw man maa daan tëggal Pape Diop. Ipo di tëggal mbay Gueye. mais xarito boobu ñu xaritoo woon ba ñu nekkee xale xaritoo nañu plus de cinquante ans cinquante ans Hippo ànd nañ ko maak moom plus de cinquante ans kon yaakaar naa ne loolu mooy ànd bu bu sincère parce que kaay ma wax la koy àndal ku ne da ngay ànd ak moom ci jukkoom bul ànd ak moom ci sa jukko nit ki boo ko boo boo boo bëggee xaritoog moom Euh, lépp nu gën ànd euh, bu la ci bu mu la ci gën a gore mukk rawatina nag muy sa mbokk di sa il faut sama mbokk la sama rakk la waaw mage naa ko plus de euh, quatre ans waaw kon kooku bu ma bu ma bokkeek moom li ñu bokk ba pare xaritoog moom di ànd ak tudde naa ko doom joo xam ne 1976 laa ko tudde doom kon nga xam ne kooku yàgg nañu nga mais lamb daf ñoo delloowul li ñu moom te it euh, boo dee tànn tey euh, euh, combat yi ma fekkee ñu bëri fekkewuñ ko ñu bëri tey boo leen waxee Bécaye 3 xamuñu kan la ñu bëri boo leen waxee Mbaye Dia Diop la Lion de Diender xamuñu kan la ñu bëri boo leen waxee Landing xamuñu kan la Giren Thior ah Yaako Sarr ah, ah, Géej Diop mais ñooñu Thiaw Mbaaw ah Ousmane Mbaaw Ousmane Diop ah gom euh, Ngom Papa Diop le champion d'Afrique moom la ñu waxoon ne le jeune champion de Pikine est rompu aux techniques et à la lutte gréco-romaine Pape Diop est venu avec un pied plâtré mais la tête haute ndax moom rek moo am médaille keroog booy bambara mu jóge ba ëgsi fi mu fi mu fi mu àgg tey ba drapeau des arènes sénégalaises la ñibbiwaale barsàq moo mujj jël drapeau des arènes sénégalaises mais drapeau boobu tey Euh, symbole la tey bu ñu jëloon drapeau boobu tey ne drapo bi diw jël na ko diw jël na ko diw jël na ko diw jël na ko ba ci Boy Bambara la mujjee arène sénégalaise euh, jeex drapo bu mënoon nañ ko jaay ay millions parce que symbole la da ñu bàyyi ko sax di ko di ko di ko di ko fàttalikuwaat mais daraay làmb lamb amul continuité daal voilà làmb daal boo dee jeexal nga boo màggatee jeexal nga làmb yëfi ndaw la waaw yëfi ndaw la mag ñi dañ leen di gunge rek dama doon nit koo xam ne musuma supporté euh, musuma am mbëru séeréer Doudou Bakassar man fi daan ñépp taxaw digg arène sénégalaise ne góoroo góor maa man Falay Balde daan ko ma supporté Falaye Falaye Baldé pare ci làmb Robert man fi daan ñëpp Mbaye Gueye dikk daanal ma Robert ma ànd ak Mbaye Gueye te booba maay tëggal Pape Diop di supporté Mbaye Gueye xoolal keroog ba Pape Diop di bëreeg Mbaye Gueye. <laughs> maa maay tëggal pa maay tëggal Pape Diop di supporté Mbaye Gueye il faut di tëggal euh, euh, euh, Mbaye Gueye mais loolu doy na waar. xam nga keroog lu ma dal nag damaa xam ne li bëgg di am am am solo xarite ko solo li bëgg di am am am solo nga ànd ak sa gaayen depuis enfance ngeen bokkandoon école nga tëggal ko mbappat tëggal ko arène ba tey muy bëreeg Mbaye Guèye keroog li may bëgg bëgg bëgg Mbaye Guèye bu ma sañoon Pape Diop da koy daan parce que keroog maa tëggal Pape Diop nga xam ne kon làmb nekk na beneen affaire boo xam ne euh, ku kune mën nga cee ji sa bopp waaw ku ne rek mën ngaa gis sa bopp ci làmb